qui est à Djansi, à Tuawa et aussi à Rassi. Et je l'avais même invité pour lui dire que le ciel, la permanence de la paix est là pour la victoire du président et que nous la mettons à votre disposition à chaque fois que nous besoin. Tuawa, au soir du 24 février, aura une victoire éclatante. Nous en serons contents, mais certainement Arsar y aura contribué je serai le premier à lever les bras vers le ciel. Tous les autres vont suivre. Donc à chaque fois que je vois quelqu'un qui œuvre pour la victoire du président de la République à Tiawan, de surcroît un mouvement qui porte le nom de Racine j'en suis heureux et dans quelque part aussi on peut dire que j'en fais partie. Vous êtes des biens parce que votre mentor est aussi mon patron et mon grand frère. Je vous remercie et bonne chance à vous tous. Monsieur

maa ngi nuyu nag sama mère man Diagne sama mère man sama mère mooy Mass Diagne <laughs> di nuyu sama sëriñ sëñ Adi di nuyu sëriñ Sidi di nuyu le CC maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu sama xarit ñëpp maa ngi leen nuyu bu ma lima demee juum di gërëm nag yéen waa si yéen ñëpp di nuyu tamit sama xarit maam Ngouda Taxa Mati Mbay maa ngi leen di nuyu ñooñu ay jigéenu Diagne lañu samay xarit lañu. maa ngi nuyu képp ku bokk ci les amis de Marème Sall wax dëgg yàlla jàppale ngeen ma sagal ngeen ma li ngeen def ni rafet na et puis moment bi ngeen ko defee mooy ay gor ngeen yàgg ngeen mobiliser wu di ñëw muy demee nii ah pourquoi nag ñu defee ko fii pourquoi parce que Tivaouane dafa bare ay nattukaay te nattukaay yépp lam si jaar la fa lam si dem na ubis def lancement officiel xelam dal mu woote fa lancement slogan xelam dal lance dem na ci anglais yi ci bayaal yi lam sa teerono Macky Sall ci ay douze mètres lam sa dem na stade la nuit de la première dame lam sa dem na ndokkel ci ci saalu yat ma mbooj kon nag bu ñu amee lu mel nii fokk lam si ñëw fii wane boppam loolu moo tax ñu def ko fii tey maa am ci ndigal ci Diagne si c'est un mouvement boo xamante ni maa ko jiite mais dama ko ragal parce que sëñ Abdou si Aziz Al Amin moo ko ñaanal moo ma samp moo ni ma enfin kër gi am mouvement man ci kër gi laa juddoo yaroo fi màgg fi ku ko xamoon wax la ko tey doomu ndar laa juróom-ñaari at laa fi ñëw ñu jox ma sama turandoo mu yar ma dama tàqali ko moom demoon extérieur def fukki at ñëw sonn bay bëgg a dee Mbaye Fall bëggoon naa mu ñëw tey mu ni ko neen les amis dama rafet sàll nañ ñëw ci saal bi ci ginnaaw ma recevoir leen foofu loolu nag wax dëgg yàlla bu ngeen ko gisee mu demee noonu man sama baay la man moomu ma jur Rokhaya Ndiaye Ali Boy moo jur Serigne Babacar Sy mooy sama Abdou Aziz Ndiaye gii al amin bu naawee damay naaw mu recevoir ma waxtaan ak man fital ma xelal ma yedd ma ba ma génnee ci loolu ba léegi yàlla xam na ko lu ma laal mu nooy nepp ci mouvement bi maa ngi dem ba di ci am loo xamante ni doxuma ko lijjantiwuma ko man dama jékki-jékki benn bés madame Mbengue woo ma ni ma am ngeen réunion présidence ma ne ah man de ba ma juddoo sama day ba tey musuma dugg présidence mais bi ma sosee mouvement bi léegi dugg naa fa quatre fois ben bu ci nek réunion lañ may wo mu defa dem ba ni yalla dogalé mouvement bi am financement bi c'est un mouvement communal bima koy sos dama bëggoon mu nek mouvement communal départemental national et international mais yalla dogal awma jottu dem ci département bi man li ci bir commune bi la Je suis en train de 500 à 600 personnes. Comme je l'ai estimé, il y a 500 à 600 personnes. Lorsque je suis en train de faire des financements, je suis en 900 personnes. Pour moi, je 100, en train problèmes. Donc, je suis en train de 900 plus 100, ça fait combien? non 900 plus 100 1000 Marième ça les finances, c'est 900 personnes Alors seen sago ci moom balaa may wax sax ñoom ñooy jiitu sama ndigal donc 900 yooyu on a les suba stade dinaa ci mobiliser 10 à 100 oui, 1000 sous stade les amis de Marième ça. Sall. di ngeen vous wala léegi nag affaire bi moom nii la man nga waa déglu leen waa ma àggale waay waa leen ma àggale léegi léegi waaw wuy ma déglul léegi yéen lu man ngeen wóolu man ngeen di liggéeyal man Mouhamadou Diagne Sy Mbengue laa wóolu moom laay liggéeyal Mouhamadou Diagne Sy Mbengue Macky Sall la wóolu mu wóolu ko moom lay liggéeyal vive Macky léegi ma bëgg leen wax maam Ngouda bàyyi ko mu déglu waay. salaamaaleykum mbooloo mi soo leen gisee ma dagg kàddu Abdou Aziz ñun moom euh, jigéenam rakkam dafa egsi te ku ko xam-xam ni moom dafay du genre maam Ngouda jigéen bu yaru la du jigéen boo xam ni li muy def daf koy woone dafa bëggoon ñëw sagal Aziz yoon naa ko dugg mais xëy na malheureusement salle bi dafa fees moo waral muy ñu naan ko dugg si la mais bu amuloon woon yëg-yëg ci Aziz xam nga kon du fi ñëw loolu laa bëggoon wax mooy jigéen ji nga xam ne mooy soxna Mamadou Sy Mbengue yàlla def yàlla boole nu ak moom ni mu nu boolee ak jëkkëram daal na boole noo moom boolee ko ak Abdou Aziz day dox nànk di wax nànk di dox di def li muy def te bëggu cee feeñ ku ko xam-xam ne tey su doon mën a heure bi fekk na maa ngi naan bas rëkkal waykat yi jógal taxaw mais moom li muy def nànk la koy def li muy def yàlla tax mu koy def loolu laa amoon lu ma doon wax wasalaam. waaye maam Gouda mënoon na ñëw rek man xoolal bâton de pèlerin bi laa ko bëgg a paas dama sonn léegi nag ñun suñu slogan bas suñu slogan mooy Macky dong Macky rek Macky képp tëggal tuli parce que Tivaouane dafa yàgg man maa ngi yaroo fii ci biir kër gi xam naa lu bare fekke naa lu bare dund naa mag ñi dañ daan wax sama kanam di def sama kanam may gis euh, Macky Sall dafa am chance chance mooy Tivaouane waaw waaw leen nag ah déglu leen yéen nag may weer de ndax tamit woon yéen da ngeen yaru de déglu leen wuyu ma déglu leen teg leen tuuti ñu àggale euh, pourquoi loolu parce que Macky dafa di koo xamante ni dafa am chance dañ di ay nit ñoo xamante ni voilà xoolal kii laa defoon kii laa defoon marraine kii dugg si nii laa defoon nu bës bi dalul tamit ay xale yu jigéen yu ndaw mouvement bi dafa bari ay mag loolu moo taxoon comme que affaire bu jigéen la ma jëloon mouvement bi ni woon bés bii damay jël Adi Sy comme présidente d'honneur jël Yaya Diallo comme marraine yàlla dimbale ma nag teew nañu ñu ngi nii mag yi dafa am chance chance bi mu am mooy bi mu ñëw Tiwaawan dafay fekk lu bari lu moo def mu def ko bu ñu toogee fii dugg lim dafay guddi loolu moo tax euh, kenn du wone kenn du wone li Macky Sall def fi kenn du ko wone boo génnee da koy gis mbëkki dem dama am gan bi ñu reeree ba pare ma ne ko kaay ñu doxal te daaw ma ñeme am gan naan ko kaay ñu doxal ko ndax bu ñu génnee duma am lu ma koy won ba ñu gënee ma yóbbu ko esplanade mu xool daal di ma ah yow lii rafet na kat lii baax na kat man ne ko lii mooy suñu centre boo demee ci Europe dafa am dëkk yoo xam ne dañuy wax centre ville centre Rome ñuy wax man ne ko fii mooy suñu centre Rome mu rafet kontaan loolu ñaanal Macky Sall ah kooku sama conseil spécial <laughs> waaw kon yi ñun waa Tivaouane ci gàttal mënuñu ko fay mënuñu ko delloo njukkal léegi nag ma am lu ma leen di wax. d'accord déglu leen ma am lu ma leen di wax ci diggante Diagne si Mbengue ak Lams doore dama ngeen xam ni ngeen xam ni Diagne Sy Mbengue ak Lams mooy loxo ak bët mooy loxo ak bët bu loxo gaañoo bët mooy jooy waaye bu jooy bu bët di jooy ku koy fomp kon nag gaañ si mel ak lam mooy bët ak loxo mais déglu moo ne tamit ah donc li nga xamante ni nag moo ñu ñor ñaari bés la benn bi mooy dimanche Macky Sall daf fiy ñëw dëkk yi nga xamante ni li fi def sax defu ko fa boo fa demee boo seetaan bitig yi da ngay yéemu ci yàlla nañu yeewu dimanche teel a ñëw ñu ànd dem ca stade ba bu ñu ko kenn mënal bu ñu ko kenn yóbbul beneen bés bi mooy lan le 24 li Babacar Mbuub di wax woote ji ba ñëw doog a ndékki loolu mooy li nga xamante ni mooy ñaari bés yi nekk suñu kanam ma di leen xamal ni leen nañ leen dollee góorgóorlu jàppale Macky Sall fal ko au premier tour dañuy bàyyi nag kàddu gi ak Babacar Mbuub loolu lañ doon tënk rek ba beneen yoon. tàccu leen. maa ngi ñëw ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu fi teew ñëpp bi suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit di sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla dolli ko wér dolli ko kàttan ba yéene bi mu am ci diine ji am ko ci tarixa bi am ko ci tiwaawan yàlla mottali ko di nuyu tabarakallahu monsieur le borom dëkk bi loolu yàlla dogal di ko ziar di ko wàccee wàcc waayam di ko ñaanal yàlla yan bi ñu ko yan démb yàlla na ko yàlla oyofal suba ci daraja yonent bi sallallahu ba ñëpp am ci ndaw ndax ndamam suba mooy ndamu Tiwaawan mooy ndamu département bi ngeen bàyyi ko xel ah di nuyu nag ñu fi teew ñëpp honorable député di nuyu suñu soppe bi suñu xarit Habib bi si Abdou Aziz Al Amin moo ko tudde woon bi sama soppe noonu lay firi ah wax ji nag du ndax tey dafa am borom moo ñu jox cër bi muy Abdou Aziz Ndiaye Lams ma bëgg ngeen tàcc ko muy ku baax ku Tiwaawan war a bàyyi xel waaye ku Marème Faye sàll war a bàyyi xel lu tax ma wax ko dafa jël léppam jox ko première dame première dame nag mérité ko ndax damay wax ne lams ñu ñëpp ci lañu bokk ñun ñëpp soppay Marème Faye Sall lañu ku ko sopp jógal taxaw Marème Faye Sall ma wax lii dafa am fu ma ko teg bu njëkk bi mooy ku bëgg Tiwaawan la moom première dame bi ci des mooy ku a diis nag lool te ci topp mooy mën a am yërmande ci jigéen ñi la bi des mooy bërki démb démb yëpp nekk naa ak moom man ak xam naa li mu naa li muy dimbalee doomu aadama moom première dame moo tax ma ne mouvement bi di lams ñu ñu ñëpp kon mépp ku soppi président Macky Sall ci nga bokk même ku dul soppee président Macky Sall sopp nga Marème fay Sall ndax nit sopp na président Macky sàll Marème Faye Sall tax nga sopp ndax jëfinam donc tabaarakallaahu nag ñuy ñaan yàlla yàlla jàppale ko ndax dañu wax ne góor gu baax ku nekk jigéen ñu baax a nekk ci ginnaawam loolu Marème wane na ko ah Abdou Aziz nag léeg-léegi may nekk avocat ndax defe naa ne mouvement bi léegi mu yàgg ñaanoon naa Pa Diallo ak monsieur le ne nañu wax Marième fay mu recevoir Abdou Aziz Ndiaye Lams ak mouvement bi dinaa ko ñaanaat tey monsieur le maire dinañu am ndam le bu ndam li passé suñ koy feete ñu boole ci audience su Marième Faye Sall ak Lams mu toog ak moom ndax neex na ngay jàppale nit di jàppale nit ba ndam ñëw ah rafet na trop mu toog ak moom donte amul jot ndax xam nañu lii mu yanu waaye nag li duf ci nag bi xaju ci cin li ñu ngi nii ñëpp di ziar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ci mbokk gi waaye jërëjëf ci ni nga taxawee ci Benno Bokk Yaakaar ndax ku gis mbooloo mi taxaw xam ni liggéey la ku gis mbooloo mi taxaw xam ni ñun ñiy toog ci président bi bu ñu indee mbooloo mu toll ni président Macky Sall bu ko neexee tëdd nelaw xam ni day gañe ci waawoon jërëjëf ci fullaak fayda bi nga xam ni yaa ngi koy liggéey yow ak famille yàgg naa ko wax jigéen ñi bennoo bokk yaakaar président Macky Sall amul seen fay bu neexee yéen a ngi fi bu naqaree yéen a ngi fi jërëjëf yéen tamit yàgg naa di ko wax dama koy répété tey jigéen buñ la joxee cër li ngay njëkk xalaat mooy résultat góor nag buñ la joxee cër li ngay njëkk xalaat mooy carrière kon gàcce ngalaama Macky Sall bu leen doolelee dooleel Tiwaawan te bu doolelee Tiwaawan dooleel Pa Aziz mi toog tey def nga ma marraine defoo ma marraine ndax titre danga maa def marraine ndax dama bokk ak yow dëkk damaa bokk ak yow koñ loolu baax rek moo ko mën sant naa la gërëm naa la De la fête de l'île, foo tourné di nga ma gis ci lo ne ding ma gis ndax yaa ma ko ji sante na la sante na les amis de Marème Faye wax ci Marème Faye Sall yàq wax la ndax moy ki ñëpp bëgg ma ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. Félicitations également pour votre constance, mais félicitations surtout pour votre attachement à Abdou Aziz Ndiaye, que j'ai baptisé l'AMS et qui a fini de faire ma nuyu leen nuyu ñi fi teew ñëpp nuyu ko moom Abdou nuyu l'honorable député Yaya Diallo nuyu Sidi Lamine nuyu Maurice nuyu doyen Omar Dia doyen Badara Ba monsieur Ndiaye ñu lay nuyu ak Seynabou Diop bu convergence autour de Macky waaye nag nuy bu baax a baax sëriñ Sidi Ahmed si mouvement Habib yi mais nuyu tamit seen président d'honneur suñu xarit Ali di rafetlu bu baax kàddu yi fi dégg ak suñu frère Cheikh Sall bi nga xam ne ñëw na bokk ak ñun liggéey bi Momar Gueye ñu ngi lay nuyu Yelamin maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ma nuyu ñi fi teew beral tamit nuyoo seen présidente d'honneur Madame Beng Kumba Diallo ici présente. Ni, ni... waaw ni mu doxale dina am ñu jaaxal si yéen ah waaye man ko duma jaaxal xam ni la musa mel su ngeen seetloo it da nek trondo mouvement muy marem Faye Momit ni début bi protocole bi problème comprendre nañ ko te lu ko waral lu dara humilité ak simplicité té Sénégal les amis de marem Faye Sall ngeen mouvement di yéenay xaritu kon Sénégal day ñi fi mouvement bi bari wuñu te li ko ko may nag mooy Adja Marème Faye Sall benn sénégalaise la bu mel ni yéen juddu comme ni ngeen juddoo màgg comme ni màggee yore jikko yi ngeen yor am guu yi ngeen am loolu moo tax mu ni loolu du tàqali ko moom ba faaw xam na ni nguur parenthèse la ci dundu doomu aadama waroo ci nguuru mais dal si war a jaamu yàlla li may wax nii nag du lu ñu ma wax dama ko xam moo tax guddeem bëccëgam lépp mi ngi si dox soxla askan bi di ko jàppale nag sëriñam El Hadji Macky Sall tey bu ñëwoon seen biir li ngeen koy gis simplicité am yëpp si télévision dina leen jiyee maat ndax bi fi président mujjee nit ñi di ko wër fekk que ma ngi génn sa biti laajte fu jigéen ñi nek mu tok ak ñom di waxtaan ak ñom non la ko yalla kon nak vous avez bien choisi votre marraine ndax elle est l'une parmi vous ma nuyu soxna Daba ndjay suñu max suñu tante ndax waxna limu li ak sama turondo may rafet lu baax kàddu yi fi dégg te li njëkkuma ko wax tay ba mu ñuy bëgg ñu am ndam bobu xamanté wuñu wuñu nuyu également Ndeye Fatou Diène bi nga xamanteni jël na fi kàddu au nom des jeunes nuyu tamit gor gui Adama Seck rafetlu kàddu yi nga xamanteni yëkëti nako fi rafetlu bu baaxa baax kàddu yi fi jib yëk tay si contexte campagne électorale lañu nek waya Lams defé na ni c'est la première fois nak suñu siège bi ma gis ni ñëpp ñëw tok ñu dem outil ay chaise mu fess am ñu bëggono a dugg ñu kon boog félicitation pour li nga xamante nii am nga lool loolu nag attachement la bu jigéen ñi wane jëme ci yow am nga engagement am nga détermination mais surtout dëggu nga li ma ciy seede mooy que nii ay jamono nit ñi sax yaakaaroon nañ ni man ak moom dañoo am problème te mësuñoo am problème nag déedéet constance bi nekk ci moom mooy su bëggee dara dina la ko wax nam la ko war a waxee bu ngeen ciy xuloo sax ngeen xuloo ci bu ngeen ciy xeex ngeen xeex yi mais nag bu jeexee jeex na. il n'y a jamais eu de distance sama diggante ak moom toujours ñi ngi wax di nekk ensemble mu may conseiller di ma wax ne man sa mag laa lu ma la war a wax dinaa la ko wax parce que sa ndam laa bëgg. nit ko sa bëggal sa ndam nag du la tout le temps su gisee ni amulen convergence de vie si dara du tere mu exprimer ko wante tamit ñun yàgg nañu gëm ni am na lu mu mënal am na loo ni na force gis nañ ko effectivement fi jaar yépp ba bi ci mu def lu rafet yi passé duma la laaj dërëm naa mobiliser samay jigéen ñëw sargal la mu def ko suñu quartier général fees dell euh, waa presse bi ñëw jël ko yóbbu ko mu nekk loo xamante ni nag duma ko fàtte bu mukk parce que ku la defar loolu nag mooy yéene na la ndam seen mouvement bi il faut mu barkeel ndax wax nga ko Serigne Abdoul Aziz Al Amine lu mu dugal làmmiñam day barkeel lam leen waxoon nga ñëw wax ma ko nga ni ma nee na nekk leen mouvement boo xam ni non seulement maay njëkk a jënd carte de membre wante dama bëgg ki nga xam ni moom ngeen di jàppale mu sentir nii rek ameel ngeen ko njariñ te leen ko sonal ci dara loolu moo tax gisu leen ko mu sonal première daam ci audience gisu leen ko mu sonal ko ci lenn lu dul xanaa bu ko waamee fu muy féete mu féete ko fo waaye nag ma xamal leen ni madame la première dame Fatehoulen, leen les amis de Marème Fayçal Sall yi nekk non seulement Fatehoulen, mais Amna na fu mu amul information bu koy rëcc ci Sénégal les amis de Marème Fay association Sénégal dañu wax ni ñaari nit bu ñu rek mën nañ former association monter son bureau am seen récépissé waaye nag association yo xam ne ci lay nous yo xamni ci association bi machallah la force que vous représentez à chaque fois que de besoin motax may saluer sa constance man damay dox ci rek ba le maire pour une victoire éclatante du président en 2014 nit nit du je voudrais qu'on prenne date manam suñu bëss bi nañ ko noté sama digënté ak Lams le mouvement les amis de Marem Faisal de Tivaouane ñu suis non seulement élire réélire le président Macky Sall le 24 février prochain mais mu nekk and ànd boo xamante nii ànd jàppalante ci lépp lay doon parce que nag amul dara lu yëngatu ñu mën leen fa see féete wala madame Mbengue mu leen fa mën a féete ñu leen koy xañ au contraire dañuy fexe ba li ciy doon seen wàll ngeen am ko ci ba mu sëkk ndax seen taxawaay ndax seen takkute ndax seen dëggu ku gis lii nag xam ni ñii ni nga ko waxee du mouvement boo xamante nii ay xale yu ndaw la ñuy mobiliser ñuy dem ay responsable ñoo fi nekk kon mouvement bi kenn ku nekk si yéen mën na indi fukk mën na indi ñaar fukki nit bu ñu bokkul si mouvement bi tamit mu nekk ñoo xamante ni seront des partisans du président de la république nekk également ay soppey Marème Faye Sall. kon Abdou Aziz encore une fois dama lay féliciter rek wax la ni la li ñuy waxante ci néeg incha allahu taala ñu fas ko yàlla nañu si yàlla jàppale. ñëwul nag pour rek topp Diagne Sy Mbengue da ma man fu may dem. lumay def su fekke naratuma amal njariñ ñi fété sama gannaaw je préfère ma tok kon njariñ bobu yal nañu yalla yombalal ba yaketi luñu yëkëti mu yombuñu jëm ci mu nekk ci Tiwaawan nekk njariñ ci yéen ba ku leen gis nak bëgg ci kon encore une fois ñu ngi leen féliciter di leen encourager demain le président de la République sera à Tivaouane xam ni ni ngeen mobiliser nii di woon ko raw Aziz bi ngeen toogee engagé wu ci seen tur ut fukki kaar ak ñeent waaye ni ma ko déggee sax dina ko ëpp ndax li fi ñëw tey rek wane na ni bu fekkente ni li ñuy def sa stade ba la mën ngeen am lu ëpp lii. kon loolu rek moo doon kàddu yi di wax ni ànd bi dooroon na démb gën na rafet tey incha allah dinañ ko gën a rafetal ba ku gis Aziz xalaat jaañ si ku ma gis xalaat Lams incha allahu taala ñu ànd. falaat la président mais buñ ci jógee aussi ànd boobu ñu gën ko dëgëral loolu nag yeneen di jataay lañ ca war a waxtaane ak fañ ca jëm ak li ci Aziz bëgg incha allah dinañ toog waxtaane waat ko te yàlla dinañ ci defal ndam incha allah mais Fatou Seye Mbaye maa ngi lay sant di kontaan ci sa teewaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu am ngeen daje fii ci permanence su euh, euh, lan moo sabab lan moo sabab ndaje bi tey fii ci euh, siège APR. waaw ginnaaw bi ma nuyoo waa woon yëpp di nuyu les autorités di nuyu tous les membres de l'AMS ndaje bi tey ñaari point la woon bu njëkk ba mooy sargal ak gërëm Adja Marème Faye Sall dafa financé mouvement bi 900 femmes jox leen juróom fukki junni may la ñetti weer nga doo ko fay.

Euh, la première dame mu mu mu mu la. Mhm. booba léegi nag euh, antuwul. Mhm. te booba léegi yaa ngi ci liggéey bi. ban message ngay lancé ñi nga xamante ni yooyu autorité yi fi nekk. Mhm. ngir la première dame mën laa recevoir. waa loolu nag dama ci am benn conseil bu ma Al Amine joxoon ginnaaw bi ma sosee mouvement bi mu ni ma nanga nga liggéey ba lu lay dab dab la bu liggéey di xaar dara ci laa nekk. Adja Marème Faye bu ñu toogee mënu maa defal lu ëpp lim may defal ku la financier

te bu ñu paree ñu ngi koy ñaan mu dolli ndax dafa am ñu bari ñu daw jóge ci àll ba ni dañoo bëgg bokk pour ñu am ci financement yi loolu lañ koy ñaan. voilà ñu ngi ci élection lan mooy sa taxawaay ak sa bokk jigéen ñi. mooy li ma def léegi rek salle bi nee nañu mu ngi def cinq 500 à 600 personnes fees na wala feesul ba am ñu nekk ci biti ak ñi nga xamante ni jotuñoo ñëw dajale ñëpp rek ma ki Sall au premier tour loolu mooy li nga xamante ni moom lay liggéey. sama dernier kàddu mooy maa ngi woo ñëpp ñu fexe Tiwaawan àndandoo delloo njukkal Adja Marème Faye Sall ah, ah Macky Sall ak soxnaam mooy fal leen au premier tour loolu mooy dernier kàddu. jërëjëf kontaan naa ci